compétition aucun ne perte On a gagné trophée on a gagné l'expérience. Quand a

validé ne kung fu daf ciy bokk ñu ñaan yàlla kung fu indi ay ci Sénégal comme ñun ñoo ko c'est normal ñu nous a pour mu des fi pour petite catégorie bi la nag invité maître yi fi nekk responsable club yi wax le président de la ligue et le directeur technique régional euh, maître Sène Elage. Nous ñu gën taxaw ci petite catégorie bi ñi 15 ans jëm kaw parce que d'ici 2022 am 18 ans tay wala 17 ans tay jappalé du ci mëna compétir loolu nak ñom suñu démé ci ay sélection ak ay présélection ñu comprendre leen ci anam bu démé noonu suñu ñëw nak ñi ngi and ak le secrétaire général de la fédération muy maître Pape Alioune Diatta ànd ak le trésorier général muy maître Thierno Diallo le président

dimate di liggéeyal ba benn quatre heure dimate fekkaat na foofu kon yàlla ci yàlla yëpp ak jàm ñu am médaille olympique te maître yëpp ndam moo fee incha allah dama ciy profité nag def ma coupe si ok photographie eh, merci beaucoup maman merci et à tout le monde ici présent, je remercier de la part de Hugo et tous les frères du dragon merci beaucoup et à demandons à Maître Allah de Thiès, suñu grand maître et suñu grand frère de gens à la Saturday. moy ñaanal la parce que li yombul yàgg nga di ko def mais façon bi nga ko defee aussi je pense que c'est la première fois donc maître yi teew fii ku ci ne tey amul nañ la cant ak yéen je pense que kii moo tax dama bëgg ngeen tàccu na ko bu baax a baax vraiment ñu réussi ko bu baax kii moom moo toppoon si suñu grand maître ki kii di wax nii moo jàngal tey jii soo nekkee Thiès Mbour wala boog Tivaouane képp ku fi nekk yor kumpu soit maître am

te tey soo gisee ñu toog da ngay foog suñu la alors que lu ñu rawee bëri lool lool lool ñu ngi koy ñaanal aussi gudd fan wér ak wér gu yaram vraiment di ko représenté suñu président fédération bi maître Ndiogou Guèye léegi wusu Guèye la sant ah Guèye wusu léegi moom Guèye la sant ku ko bañ ko nangu Guèye la sant waaw léegi fédération Guèye la ñuy wax ok donc nekk le président de l' association sénégalaise des jeunes maîtres de Wushu le président de la ligue national Sanda aussi nekk le président de la fédération sénégalaise de donc félicitations encore pour cette performance -là. ok donc vraiment merci beaucoup Nous euh, ngi remercier donc je pense que affaire yi de troisième place à deuxième place moi, amoon première place donc euh, contribution bi foofu la show you re re re re re sio. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Cobra Noir est déclaré vainqueur du tournoi des flammes de dragon de chess. Merci. Ah, donc vous n'êtes pas encore xar wa chess da ngeen to xaar gaay am na ay démonstration yu extraordinaire rek si muy waa de concurso voilà ñu doon suñu kilifa nag salle ba rek boo ñëwee fii da ngay am ndam. allah kii nekk kenn ci say élément ñëw daal di jël médaille d'or bi uh-huh. la def ci xol. waaw du moom rek parce que am nañ sept médailles d'or mm. voilà sept médailles d'or vraiment compétition bi dañ cee prouvé voilà mi ngi noonu yàlla dogal na moom bokk na ci ñi mm-hmm. takk capitaine champ course mm-hmm. voilà capitaine champ de course moom moo ko yor voilà mi ngi noonu kii moo yore capitaine Madina Fall mm-hmm. Sadi bu baax voilà wax dëgg que yenn saa du toog ba ngeen yàgg am ay jafe-jafe ci biir fii nga xamante ni ni mooy fii la club bi nekk. Mm, effectivement waa jafe-jafe yooyu dañ ciy sawar parce que tamit wax nga lu am solo voilà Cobra Noir moom club bu am doole la ci biir Thiès. Mm-hmm. rawatina li ñuy liggéey voilà bëgg nañ sax incha allah ngeen ñëw seet suñu pour découvrir beaucoup ñu lay jaajëfal maître bu baax a baax yow nga toog euh, ki nga xamante ni que nii da ngaa bokk ci ñi nga xamante ni que nii ñoom ñoo am diplôme bi nga xamante ni mooy médaille d'or médaille d'or doon loo xamante ni dafa neex ci xol ana naka la def ci sa xol. waa avant ñuy wax dara ñu sant yàlla bu baax di sant suñu maître bu baax a baax mhm. di sant bépp compétent bu fi nekk bépp maître mhm. te di wax ni liggéeyam rek moo tax ñu am ko mhm. du suñu jàmbaar dara yàlla maye ndam ak moom liggéeyam remercier lu bëree bëri di remercier suñu combattant yi yëpp mm-hmm. xam ñu ñëpp ñooñu suñu maître ñun ay débutant leen rek dañuy soog a commencé débutant moom du am médaille d'or moom waxal boo yi sa secret te boo yi nag ñu fas yéene am ci med ñëpp dañoo bëgg ci médaille d'or bi waxal sa secret mooy lan waaw premier entraîner si la bokk mm-hmm. ak respecter sa maître mm-hmm. respecter ordre bi jéem a góorgóorlu dem loolu rek moo fi am solo maître dañuy tourné waat ci yow lan mooy doon sa li nga xamante

communication bi mmh. wàllu nit ki